أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di dellusiwaat ci bindu juróom-ñeenteel bi ci waxtaan yi nga xam ne ñu ngi koy def mu aju ci dundug yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye di ko sukkandiku ci xasida Jazbul Xuluub li allaamil xuyuub sunu sëriñ cheikh ahmadul xadim ridwanullahi taala alayhi def ko bindub juróom-ñaareel bi ak bu juróom-ñetteel bi yépp ñu ngi doon waxtaane lu jëm ci xare Badar waaye tey ci bindub juróom-ñeenteel bi dañoo fas yéene waxtaane lu jëm ci njariñal ak xéewal yi nga xam ne nekk na ci dundal guddi gàmm sëriñ bi wax ko ci xasida gi ñun ñëpp xam nañ ne yàlla suñ boroom soññee na lu bare bari ci alxuraan di xamle ne yonent bi ak ñëwam ci jamono doonut lu dul yërmande ci ñun wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamina waxaatit ci alxuraan ne yonent bi day moo gën a yey moo gën a yey ci way gëm ñi seen bopp yonent bi moo gën a yey ci way gëm ñi seen bopp annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim wax yu baree bari ci alxuraan wax yoo xam ne day wane ñun cër ak yitte ak bëgg koo xam ne dañ ko war a jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ci boppam it ci mbaaxam xam na ne kenn ci ñun wala kenn ci yéen way gëm ñi ak ngëmam du mat mukk fee gënaluma ko léppam te gënaluma ko waa këram gënal ko nit ñëpp bu fekkee àggut foofu rek na xam ne ngëbam des na looloo tax sunu sëriñ Mawlana Cheikh Ahmadul Xadim wane lu baree baree bari ni mel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wane na bëgg ko farata la wasalli daban ala man xubbuhu furida wane waat ne moom bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba xolam mënu cee bëggaat laneen mënu cee bëgg kër munu cee bëgg njaboot munu cee bëgg dara àdduna te li ko waral rek mooy bëgg gum bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maxat mahabatiyal muxtaara sayidana xubbil maxaaniya wal ahlina wal walada àgg ci sax banaan jëmmam deretam ak njabootam léppam pare na pour jote ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dami wa ahli wa awlaadi wa awlaadil fidaau lahu abdan qadiman lahu muskaana li sanada àgg ci sax bay waat naan daa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àgg ci ba nga xam ne bëgg gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi wax ji rek ak jëfe gi doyut mu bind ni waat ne daa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam billahi ahbabtu rasulallahi alayhi xayru salawatullahi waat ne bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àggaat ci sax ba ne yonent bi day bu fekkee ne daa naar a dox ci kaw suuf am lu nar a jam ci tànk bi moo xam ak dégg la wala lu mel noonu moom pare na pour teg ab lexam yonente yàlla bu tedd bi jaar ci ak tànkam xaddi wiqaayatun li rëjlil mujtaba min sawkatin wa ma yudaahi xaqraba yaakaar naa li mu wax ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ni mu ko bëgg loolu kenn mënu ko wax ci benn jataay ay bayit yoo xam ne nii ak xeeti waxin yoo xam ne nii musu joo dégg ko waxee nu mel noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne jëm yëmut ci wax ji rek waaye jëfe gi da koo feeñal njabootam gi yëpp mu tudd leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jëfee nam doon jëfe di waxee nam doon waxe di soññee ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àgg na ci ba ne képp koo xam ne nii yaa ngi sikki sàkk sab xol wala ngay déng-déngal sab xol ci jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala nga koy denale kenn na nga xam ne day yow ku réer nga ku sàggan nga te sax ab yéefar nga far man shakka fi taqdimihi fa jaahilun wa xaafilun wa jaahilun wa zaahilun kon yaakaar naa ku aju ci moom wala ku dib jullit rek war ngaa am foo teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bisam bii nga xam ne ñoom gaa ñu baax ñëpp maase nañ daa ko dundal ci li ci soññee mooy bis bi nga xam ne ci la gane jamono bu weer wa ak at ma dellu si muy weeru gàmm moom sëriñ bi sax waxuma la gàmm waaye daana santaane sax guddig altine ku jot boole ci di ko def ñu di ko màggal looloo tax ak dundam bi mu nekkee ca njaareem guddi gàmm gi bu jotee moom moo ko daa jiite dundal gi nga xam ne moom la ko doon dundal looloo taxit ci xasida gi mu wax ci lu rëy wax ci lu yaatoo yaatu ci njariñal dundal guddi gàmm xasida gi mu wax ne juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala gàmmu day lu màgg la lu barkeel la lu ñu warmaal la te it màggal ko lu war la ca ñu jiitu woon màggal ko it ci anamuk sunna di ko def ci defin boo xam ne nii du génn sunna loolu day may àjjana ca day dolli xéewal mawliduhu muazzamun mubaarakun muxtaramu taxsimuhu yanxatimu ala sawi taqaddumi taxsimuhu bi sunnati yaquuduna lil jannati bi isdiyaadul minnati li muxlisin muazimi mu wax ne képp koo xam ne it màggal nga guddi gàmm guddig yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy buntum njub na nga xam ne ëllëg yomal xiyaam suñ boroom du régler sa dara ëllëg yomal xiyaam danaan la waaxul dugg àjjana kenn du nekk di xool sa jëf ja nga doon jëf la ca baax ak la ca baaxut fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu xada naxtariman wa adimi kon na nga xam ne guddi gi na nga ko warmaal bu baax a baax a baax a baax bu ko yemaleeg yeneen bési bu ko yemaleeg yeneen guddi yi fa man yuazim mawlida xayril baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran bi xayri wahami képp koo xam ne màggal nga guddi gi ci anam gu neex yàlla anam gu yàlla gërëm na nga xam ne yaa ngi mel ni ku àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon xare badar waxuma la sax xare badar rek waaye day mel ne da nga ànd ak moom di xare badar ba des fa garaat yooyu ñu am ak tiyaaba jooju nga am ñu am nga xam ne ginnaaw yonent yi ñoo ñu ëpp daraja yow jàppal ne guddi gàmm googu rek boo ci góorgóorloo màggal ko ci anam gu sell gu teey yaag ñoo ñu yéen a tolloo daraja fa kullu man anfaqa fii mawlidihi musharrafi maalan bi xayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman xadar yawma xunayni wa sabar wa yawma badrin wa nasar xayral wara mu fahim nee na képp koo xam ne nii fexe nga góorgóorlu ci guddi gàmm nga joxe ci saw ñaq sa ñaq woowee lu mu mën a doon nee na bu ko xeeb lu mu tuuti tuuti rek donte benn dërëm la na nga xam ne yaa ngi mel ne ku teew bisub xunayni xarib xunayni boobu alquran naan wa yawma xunayni ci suurat tawba na nga xam ne yaa ngi mel ne ku mel ku teewoon ca bis booba di muñ di ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi mel ne ku teew bisu badar jàppale yonent bi ba mu gàññee ca bis boobu noonu képp koo xam ne def nga sa dërëm ci bisub gàmm fa man yuaddim mawlida nabiyina babil huda falaa yuxaasabu xada inda al xisaabil mufhim daal di ñëwaat fedd liwaat la mu waxoon ci ginnaaw léegi te loolu mooy ku ko màggal ëllëg duñ la xisaab kenn du régler say mbir dañ naan la rek demal àjjana la nga jëfoon ci lu baaxut ci àddunaak lu baax laak lépp kenn du ko xool màggal gi nga màggal guddi gàmm gi rek ci lañ naan la waaxul dem dugg àjjana nee na sax fa kullu man xat xadara mawlida mawlida afdalil wara muaziman mubashira bi sukkarin aw laxami fa innahu xat safira bima yudiimul busara wala yulaaqi darara yow majtimaahil umami képp koo xam ne teew nga fa ñuy gàmmoo ca guddi ga mu jaral la nga bañ a nelaw di dundal guddi gi di màggal guddi gi di joxe ñam moo xam ñami suukar la café wala lépp lu ñuy naan lu saf suukar wala lu ñuy lekk ci la ca gën a kawe di ndawal yooyu yëpp nga góorgóorlu ci ba joxe ko wala nga bokk ci ña koy joxe la nga xam ne sa aajo faju faju na tey da nga sax ak mbégte ci ëllëg yomal xiyaam doo dajeeg dara dara luy lore wala dara dara loo xam ne loo xam ne nii bëggoo bëggoo koo gis nee na fa man taaman hayya a li man lahu xat xaraa mu bajjilan fa xaba a xayraati ahlil himami képp koo xam ne nii waajal nga aw ñam jox ko ña nga xam ne dañ doon gàmm moo xam ñay waxtaan la wala ñay jàng ngir ngir màggal rek na nga xam ne laq nga yiwu gaa ñu baax ñi fi jaaroon ñi fi jiitu woon waman ala shay'in xaraa mawlida sayyidil wara tabarukan fa sa yara nu mu waxu bil fatxami képp koo xam ne jël nga dara nga jàng ci ci guddi gàmm jàng ci lu baax rek loolee nga jàng day wala loolee nga léemu day lañ ko seenu danga ko am danga ko ca gis way naa laa maa in xuri mawlid mawlidu xayril basari fa surbu bil mutahari yakufu kaydal murxami yunawiru xalba sharaab min saalikal ma bil mujaab wal xalba yuxyi duuna xaab wa an shaqaa i yaxtim képp koo xam ne it jël nga ndox ñi doon màggal guddi gàmm kuréel bi doon jàng xasaayit wala ñi doon durus wala ñi doon waxtaan ñu daal di tigoom ndox ndox moo xam ne bañ noppee tifli nañ ca ndox ma ndox moomu nañ xam ne saafara la soo xam ne nii day saafara yëpp jàngoro saafara la soo xam ne nii it day leeralub xol saafara la soo xam ne nii it lu ci waaye fas danga ko ca gis ixyaau mawlidil bashir yaxmil xiyaala wa duyuur fiihi shifaaun li sudur li kulli haadin yantami nañ xam ne daal màggal guddi gàmm wala dundal guddi gàmm day aar day aar njaboot gi tey day saafara xol yi ñeel képp koo xam ne nii defe nga ko ci anam bi nga xam ne mooy anam bi neex yàlla kon daal nañ xam ne guddi gàmm genn guddi la goo xam ne lii benn yoon lay am ci at mi ku ci góorgóorlu ba def ko lii ci sëriñ bi wax yépp incha allahu taala da nga daje ak moom looloo tax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daa màggal bis bi dañ ko laajee lu tax nga tànn bisub altine ci bis yëpp yi ci des wóoroo ko mu ne ci bis bi ci laa gane jamono te ak ganeem jamono moo waral xéewal yi am yëpp ci jamono ak jëmoon yërmande la ci xeet bi danaa dégg it sëriñ Abdourahman Mbacke moom sëriñ Abdou Khoudous yal nañ ko yàlla sàmmal bu baax a baax mu wax ne sëriñ bu mag bi nee na ñeenti xasida yi doy na gàmm jës bi mawaaxi bi muqaddamatul amdaax ak miimiya nee na ñeenti xaside yi doy na gàmm maanaam guddi gàmm daal ku góorgóorlu ba fas ko ci jàng ko ci da nga xam ne dundal nga guddi gi muy jës bi mawaaxib muqaddamatul amdaax ak miimiya kon ñu ngi ñaan suñu borom guddi gàmm gi nga xam ne ci lañu jëm jublu ko yiw yi ci nekk ak tiyaaba yi ci nekk yàlla buñ ko yàlla xañ yàlla nañ ci dajeek moom yàlla na yàlla nangu it lépp luñ ci def ci barkeb sëriñ bi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
آمين